di ñaanal ñëpp jaam tey ñaan yàlla def ko ci àdduna bépp di remercier encore une fois ñëpp ñi nga xamante ni ñi ngi suivre chaîne bi di lu xew TV tey nag waa lu xew TV dañ ñëwaat ak yéen ci beneen vidéo set fois yi nag mu nekk sunu benn mën naa ni yaay booy boo xam ni dafa amoon ay jafe-jafe jamono yiñ toll soxla woon ndimbal soxla ku ko jàppale donc su ngeen dégloo audio bi ñu leen di waaj a tegal mu ngi ciy wax képp ku koy dimbali nga jaarale ko ci man mais man li ma gënal mooy képp koo xam te ni da nga ko bëgg a dimbali soo ma contacté ma boole la ak moom directement lépp loo koy jox lépp loo koy dimbalee te yàlla tax nga xam te ni ci yéen ñaar lay yam yéen ñaar yéen a koy séq mais man ku ma woo dinaa la boole ak moom directement bugguma dara jaar sama loxo képp ku ma woo rek dinaa la boole ak moom lépp loo koy dimbalee te yàlla tax nga dimbalee ko ko nag comme dafa nekk jafe-jafe. wóolu ñu contacter ñu expliquer ñu problème am moo tax ñu ni dinañ ci waslu àq ñu jàllale ko di ci woo ñëpp nag képp ku ko mën a jàppale te yàlla tax rek ñu ngi lay ñaan ngir yàlla nga jàppale ko donc képp koo xam ne pare nga pour jàppale ko te yàlla tax numéro bii di affiché mooy suñu numéro kuñ ci woo wala kuñ ci contacter par whatsapp dinañ la boole ak moom nga mën a waxtaan ak moom kon ñu ngi leen di bàyyi ngeen déglu waxtaan bi ñu jot am ak moom di leen jox dig daje ci beneen vidéo incha allah. maa ngi leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak ci santam waaw man nag jaaxle moo tax ma dugal audio bi pour képp ko ma mën a dimbali moralement ak financièrement maa ngi leen di tàllal samay loxo di leen woo ndax man sama benn xarit sama benn patron bu ma doon liggéeyal def na sept ans léegi moom moo ñibbi Europe fii la nekkoon Sénégal après mu ñibbi Europe bi mu ñibbee Europe man déggante tuñu woon ba oh, mois de mai ñu commencé déggante maag moom mu gis sama doom yi jigéen la woon mu gis sama doom yi ñu waxtaan noonu mu wax ma ma ne ko man dama divorcé man maa xale yi ñoo nekk nii léegi dama divorcé maa ngi nii toog yooyu mu ne ma kon sonn nga de ndax Sénégal dafa metti ma ne ko waaw mais maa ngi sant yàlla parce que maa ngi liggéey mu ne ma dinaa yón dinaa la yónnee xaalis ak ay bagage pour xale yi ma ne ko d'accord mu jël bagage yi ak xaalis bi yëpp def ko ci valise jox ko benn xaritam bu waroon ñëw Sénégal xarit bi bi mu ñëwee ba Cameroun seen patron woo ko ne ko ñëwul wuy ma parce que dañu détourné xaalis ci entreprise bi kon kenn warul génn na ñëpp ñoo dañuy def enquête kooku woo ma wax ma ko ma ne ko delloo ko valise bi mu ne ma duma ko mën delloo sama bagage yi dafa bëri bàyyil ñu fay ñu yónnee la ko foofu ma insisté mu insisté ma bàyyi ko ñooñu ne frais bi quarante cinq mille la pour que ñu envoyé ko mu fay quarante cinq mille yi bi ay bi may julli deux heures ñu woo ma téléphone ne ma madame sa euh, sa code bi dafa am xaalis ma ne leen effectivement ñu ne loolu dañ koy tere ma ne leen man xaw ma ci woon dara de ñu ne ma léegi kon da fay trois cent mille pour ñu yónnee la ko boobu ba léegi maa ngi fay trois cent mille deux cent mille pénalité magasin euh, reçu de sortie lu nekk ñu ma koy fay lool ma jaay samay takkaay envoyé di leb di envoyé ba ma nekk ci somme ëpp un million et quelque instant bi nag ba tey jotuma ci bagage yi moom ma woo ko wax ko ko mu jël avocat nee na pour avocat bi lijjanti affaire yi avocat bi aussi ne ma envoyé waatal fay frais de magasin bi ñu envoyé la ko ma ne ko man instant bi yoratuma dara li ma yoroon yëpp yemale naa ko ci par la suite nag femme bi dafa feebar mooy ki mu yónnee bagage yi mu ngi hospitalisé hôpital mënatuma ko jot mënatuma ko jot fenn ba pare ma avocat bi rek laay déggante léegi ba pare ñi ma lebaloon seen xaalis ñu ngi ma taxawu maa ngi nii dama xalaat duma lekk duma naan dama feebar dama xalaat a xalaat ba bëgg dee nit ñi ñu ngi ma taxaw di ma menacer de plainte ñii di ma li ma yoroon yëpp joxe naa ko lu ma lekk sax amatuma ko may tàllal loxo te fii dëkk dama fi luwe may tàllal loxo euh, les hommes sociaux di tàllal loxo les les grands cœurs di tàllal loxo ñi nga xam ne def yàlla tax rek lañ fi nekkee di tàllal loxo. ñëpp képp ku ma mën a dimbali te yàlla rekk tax man waxuma sax ay bagage li ma doon am chaque weer doy na ma sëkk maa ngi ci doon tund di ci yor sama njaboot taxawaaloo ma bëgguma dara lu bon moom it sax mi ma ay bagage xëy na dama yërëm rek waaye ñaanuma ko dara kon nag maa ngi tàllal samay ñaari loxo di woo képp ku ma mën dimbali te yàlla tax nga dimbali ma ci sa yërmaan ci ci ci ci sa yërmande ci sa doole ku am aussi loo may conseil ndax man dama bëggoon sax a dem waaye ba ma xalaatee sama njaboot gi rek ma toogaat ma xalaatoon sax xaru waaye bi ma gisee bi ma xalaatee sama digg sama borom rekk ma arriéraat maa ngi julli di ñaan waaye ku ma dimbali rek laay wër ku ma jàppale laa bëgg ngir mu fay boru jàmbur yi ngir man prendre sama vie comme avant maa ngi tàllal loxo sénégalais yépp di leen ñaan di leen ñaan ci kàttanu yàlla ak yërmandeem ngir dimbali ma te yàlla rek tax képp ku mu bëgg a dimbali mën nga woote ci lu xew TV 77 666 56 70 bu ngeen ko woowee boobu tey moo may jàppale di ma conseiller lu ngeen ko wax rek dina ma ko jottale lu ngeen ma jox aussi dina ma ko jox maa ngi leen di ñaan yéen ñëpp ngeen gën jàppale ma ngeen dimbali ma te yàlla rek tax merci. salaamaaleykum soxna si ñu ngi lay ziar bu baax yaa ngi ci jàmm. d'accord dégg nañ histoire bi nga expliqué bu baax a baax man déjà tey li ma lay njëkk a conseillé mooy envoyé yi ngay doon envoyé ndax sax déjà ni nga instant yoratoo dara loo lekk sax kon xam naa doo envoyé mais bu sax xel sax dem ci ngay leb dara di ko envoyé envoyé moom arrêté ko bi ci topp mooy wax nga ci waxu gàddaay a waxu xaru yooyu yëpp benn du ci solution nga àdduna heure boo ci nekkee. parfois mën nga dund bonheur parfois mën nga dund malheur nattu nag moom sunu borom moo koy tege mais heure bu ñëwee rek muñ ko te nga sant boroom bi xam ni saay bu ko soobee dina ko teggi donc bul xalaat mukk di xaru bul xalaat mukk di dem te comme ni nga ko waxee rek am nga njaboot donc bàyyi lépp ci loxoy yàlla dina ko saafara incha allah léegi man question bi ma leen njëkk a laaj mooy. sa patron boobu noonu nee nga moom da nga ko doon liggéeyal il y a de moom dafa ñibbi léegi Europe mais ban dëkk la ne ci Europe parce que colis bi nga ni dafa jóge foofu noonu après ki ko waroon indi moo jaar Cameroun ñu woo ko diggante boobu dafa xaw a luus trop ci man dafa xaw a daal leerul sama bopp parce que colis bi moom Europe la jóge ak valise bi waroon na ñëw Sénégal léegi lan la doon def ba jaar dafay ne moom daal bëggoon nañ nga leeral côté boobu. waaw sëñ bi dëgg la moom moom mi ngi mi ngi Belgique nii problème bi mooy euh, waa ji ko doon indi dafa waroon def Cameroun Gabon Mali du ko ñëw Sénégal ndax ñëwul woon pour ñëw nii ci affaire ci euh, seen entreprise bi ñoo ko yebaloon ñoom ñoo ko yebaloon ñëwul woon pour def direct Sénégal déedéet dafa waroon def les quatre pays d'Afrique mooy. mooy Cameroun Gabon Mali Sénégal loolu wax na ma ko avant muy départ léegi bi mu bi mu demee moom femme bi dafa bëggoon mu jox ma ko mais amee mu ne ko yor ko après soo demee nga jox ko ko mais bi mu ñëwee ba Cameroun war a dem Gabon ci lañ constaté ne dañu def détournement seen d'argent ci seen entreprise bi patron bi woowaat ko ne ko nañ ñëwaat loolu moo tax ñu cam foofu. mais femme bi Belgique la nekk présentement nii daf feebar moo ngi hôpital man des fois doomam sax uh, wala frère bi laay dégganteel soo déggee ma bëgg a dem je veux partir loin d'ici lan moo tax parce que nit ñi laa xamul nan laa leen di def gàcce gi moo xajul ci man nit ñi ma jël seen xaalis ñoo xam ne mësuñu seq loolu jàmm ak salaam ak respect rek lañ amante ñu wóolu abal ma manit ma am yaakaar rek tax ma jël ko ba tey lii yëpp fekk ma ci preuve yëpp mu ngeeg man russi yi mu ngeeg man lépp mi ngeeg man jaaxle naa ba fu jaaxle yam ku ma dimbali laay wër te yàlla tax ok d'accord tontu bi leer na naa ñu léegi comprendre naa bu baax te yaakaar naa tamit ñu koy déglu dina leera noonu ci ñoom comme ni ma la waxoon rek affaire gàddaay moom bu ko sax xalaat ba koy def lépp rek teg ko ci loxol borom bi xam ni lépp loo xamante ni si moom moo la dal moom moo moom moo la ko teg te moom mi nga xamante ni si ku mu may nga am ku mu xañ nga ñàkk ñu ngi koy ñaan yàlla na saafara lii mais affaire de dem moom bu ko sax xalaat léegi beneen question bi di topp mooy comme yow yooyu ñu doon fayloo nan la da ngaa war fay lii da ngaa war a fay lee ñan ñoo doon fayeeku loolu. exactement waa ji nga xam te moom moo doon indi valise moom moo ko doon fayeeku wala ñan ñoo ko doon fayeeku bëgg nañ tamit loolu mu leer parce que da nga a fay rek ngay fay xanaa di nga xam ñi ngay fay ñan lañ. amiin yal na yàlla nangu ñaan yëpp rek amiin yàlla baax na waaw man kii kii euh, ji bi mu ñëwee ba Cameroun daf ma jox euh, daf ma jox euh, waa aéroport bi ma wax ak ñoom ñooñu laa doon fay ñoom ñoo ma doon laaj. waaw chef aéroport bi ak euh, ki chargé wu colis ci ci aéroport ba waaw camerounais yooyu man ñoom laa doon waxal ñoom ñoo ma doon laaj pour ma fay ñoom aussi la doon envoyé xaalis bi. ok d'accord d'accord je comprends mais est-ce que réellement sax yow chef aéroport nga doon waxal parce que camerounais la plupart ñu ci bëri ay arnaqueur lañu. et tamit amoo benn soupçon ci waa ji nga xamante ni si ne moom lañu joxoon bagage parce que loolu tamit dafa xaw yomb trop chef aéroport bi la jox kook ngay fay nga fay ko lii mun la noonu da nga yónneewaat lii da nga yónneewaat lee loo xamante ni si yaa ko moom ci yow war a jëm nga fay déjà quarante cinq mille yi nga xamante ni moom moo doon tax kuréel bi mën a ñëw Sénégal ba pare ñuy laalaat ay affaire dugg na fii génn na fii yooyu yëpp est-ce que réellement yow chef aéroport bi nga doon waxal. voilà tamit xaw na doy waar wala yow dañ la wax ni la moom la rek nga gëm ko commencé di fay. waaw Mohamed ah, man man man dañ ma wax rek xam nga man nekkuma fa man nekkuma fa mais kee laa wóolu sama patron bi rek laa waaw ma jàpp ne kon dëgg la léegi man fee moom liñ doon manigaase ak li ñuy wax moom comprendre ma ko waaw en tout cas moom dinañ ma wax ne ma moom la ma wax. avec ses preuves ah man ma ne d'accord waaw man moom nekkuma fa te xaw ma lu xew liñ ma wax rek loolu laa doon mun jàpp moo tax depuis démb ma ne la dama am problème parce que ma arnaqué man je sais ne euh, du yoon moo tax ma je me suis retrouvée sur vous man kay comme am naa ci doute laaj naa laajaat mais que faire à chaque fois may am yaakaar ne peut-être su ma fayee lii dinaa ci jot peut fayee lii dinaa ci ok d'accord ñu ngi lay jaajëfal bu baax ci leeral yi yëpp donc incha allah dinañ ko jàllale ci kàttanu borom.